mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen Baye Collé Laye gérante ba di wóyoo ci turu Collé Laye madame bay nekkee ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye da leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escroquerie plaquage greffage wala ngeen seen i greffage bu

clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di ngeen fa fekk ay trois di ngeen fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle disponible ngeen mën ko woo ak Kolle laay madame Mbaye ku fi ñaaw Serigne ci yow kon nag fas yéen bàyyi ko lelaay ku ko seet si seet si sa njariñ. My baby got me for life, for saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey ba léegi fekk fa coowal Alioune anakan mooy wutu Alioune ci bopp CNG bi depuis ba nu annoncé ne 31 octobre la mandaam di jeex moom président Alioune ba léegi ak làmb ku ci xëy da laaj anakan moo koy remplacer yematuñu foofee waaye dañuy xëy samp mbër ne kii moo war a mën a remplacer président Alioune Sarr semaine bii ñu génn am na keneen ku yëgluwaat gannaaw Mouhamed Ndaw Tyson mi fi yëglu te ku génn joxoñ CNG bi moom soit mu ngi ko porté ci Tyson wala Moustapha Gueye la mu gëm xamle ko mooy fédération moo imposé wu jamono ci lamb ji dafa jot ñu dem ci fédération bu ñu demul ci fédération nag nanu jël lamb ji dénk ko Tafa Gueye wala ñu dénk ko Tyson moom la ministre Matar Ba bu ma nekkoon conseiller technique am dama koy wax mu tànn Tyson wala Tafa Gueye waaye li ma gën a bëgg gëm ko mooy fédération jamono ji fédération moo imposé wu dañoo war a dem ci fédération li ni ba mu fi amee bu njëkk ay kese ñoo ko yoroon maanaam ñi yoroon fédération amu ci woon kenn ku jàng kenn fa nekkoon intellectuel muy président ba Adrien Fall à part ama amateur la ñu amul kenn ku ci jàng école bu nu sukkandikoo ci loolu nag war nañoo mën a sampaat beneen fédération ka d'accordul ci fédération d'accordul ci Alioune Sarr mooy Lamine Diong ma ñuy wax zoo technique moom la mu bëgg mooy ñu déjjati Alioune Sarr fi mu nekk te teg ko fa conférence de presse la def ni ki samedi woo presse bi yépp fa séene leen a wax nan la bëggee CNG beeg fan la ko bëgg a yóbbu ci ay kàddoom mën nañ cee jàpp mu xam ne ministre des mooy ko neex loolee xam naa ko xam naa ni muy demee loolee moo ma sàkku audience sama diggante ak moom ñu fa séene jàkkaarloo gisante te biir na ma ne maag Matar Ba bu ñu gisante ba ma wax naa lamb ji problème yi muy jànkoonteel xam naa fan laa ko war a jëme lamb ji fi mu toll nii waratuñoo nangu ñu koy jël di ko dénk benn mag ñun gone yi ñun lañ ko war a jox ñoo ko mën ñoo ko attan noonee la def ci sunu lamb moom zoo technique dóorab campagne am ba xolam set bu doon jamonoy élection ñu ne zoo technique meeting na ba noppi bu dee Gaston Mbengue le doyen des promoteurs bañ ko laajee ci Aline Sarr ak yàgg gi mu fi yàgg ak kan moo koy remplacer wax na ca xalaatam la mu ca xamle mooy la ma cay wax du bari président Aline Sarr du tabb boppam Matar Ba moo koy tabb du fi jële boppam Matar Ba moo ko fiy jële te man Gaston Mbengue am naa confiance ci ministre bi lu mu def baax na bu dee Aline Sarr nag moom lenn rek rek lañ ko mën a reprosé mooy yàggaayam ku koy ŋaañi ci lenn nga ko mën a ŋaañi mooy yàgg yàgg gu mu yàgg ci CNG bi kese nga ko mën a ŋaañi te loolu du défaut te beneen président CNG bi fii ñëw sàkku na nu mu mel ni Alioune waaye man Gaston Mbengue du ma ne diw moo koy remplacer du ma ne kee moo ko war a mën a remplacer li am ba des mooy ku fi mën di ñëwit na mel ni Alioune Sarr moom Gaston Mbengue ba mu waxee ca coowal Alioune Sarr ba noppi ca la ko Gris Bordeaux ko ko kaay fii waxtaan ñëwal fii ñu waxante faaw ñu wax lu leer Gaston yow xam nga ne man Gris Bordeaux ñaar fukki at yi fi def yépp amul benn yoon bu ma fi taxawee taxawaayu yàq làmb man samay sa teg sama positionnement du may ma nekk fii ni di téesante kan mooy Gris Bordeaux ñu ne la tête de de l'écurie Fass kan mooy Gris Bordeaux ñu ne président association des lutteurs en activité kan mooy Gris Bordeaux ñu ne le troisième tigre de Fass xam nga ne kooku du nekk fenn di téesante kenn bu dee sama digganteeg Balla Gaye nag bu amateur yi tiit bu kenn ragal suñu combat mënul ñàkk faaw mu am bile combat làmb ko bëgg Gaston bëgg nga ko honoré say engagement dama la fiy bàyyi xooli keneen sama combat ma association FIS ak ONFP doon formé en garde rapproché yi mbër keroog ca mairie ba lañ leen jox seeni diplôme waaye ONFP bu docteur Souleymane Soumaré da defal bonus ba mu leen joxee seeni diplôme ba noppi ñetti mbër la ca tànn ñetti ñamu tànn recruter leen d'office mooy Tidiane Faye Amandaw ak Caatu Yaraax ñetti mbër yooyu ku ci nekk tànn nañ la wutal la embauchement bu ñu jàllee ci écurie Lebu gi seen saison 2019 leen di fekk ñu def 3 combats de 2 bu lébu gi moo daan booy joolaa bu yëmbal mare seen ñaari defet ya si bu kër mbay faal moo daan alpha booy balde bu faalaay balde moo daan booy jum bu lébu gi bu dee idrissa sàmb seen coach ba la mu xamle mooy sunu plan yépp dafa daanu ca ndox ma suñu objectif moo nekkoon def parcours zéro faute waaye ren ni mu demee ñoo ci tegandoo sunuy bët dañuy ñaanal kay sunu rakk sunu xarit papa yaada de yàlla xaare ko ci àjjana ja jërë my baby got me for mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen bay Collé Laye ba di wóyoo ci turu Collé ma madame bay nekkee ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye la leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escurely placage greffage wala ngeen bëgg sérum yi nuy traité seen i greffage bu mu rafet ngeen bëgg ay steam pour defar seen greffage bu ngeen yegsee ci fas yéen bàyyi ko lelaay seen xol set bu dee yéen yor seen greffage bopp bëgg koy steam daw si leen gaaw da koy defal ci njëg yu xéewal te bu ko jàppee ba bàyyi ko ngeen jàpp lu bees la bu dee da ngeen bëgg greffage nag xeet bu mën di lekk greffage red frisé ba ci semi ondulé original bi ngeen fii fekk ngeen bëgg ay accessoire ngir defar seen i perruque peñe wàllu clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di ngeen fa fekk ay trois raies fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a conseiller li gën ci yéen elle disponible ngeen mën ko woo ak kolle laay madame Mbaye ku ku fi nax greffage rek ci yow ko lelaay ku ko seet si seet si sa njariñ. My baby got me